dañoo pare pour taxaw pour pour waaw pour jëflante ko ba mu saf sàpp mais ah. lépp nañ ko def ci fair play rek. mais ñu gisit lu gën a rafet daam mooy nga bàyyi fii ñu baree bari ay personnes ressources bàyyi fii ay politiciens ay nit ñu am ndombo tànk ci dëkk bi yaay xam leen jaari di daw leen dar bi dem ci ñoom nga baleen fi ne leen aram ñaa laal yoon lu tax arab ñaa. waaw aram daa da da moo la maa la koy wax sànq ne la aram alaaj Moustapha Ndiaye moo tax ma xam aram. moom moo booleek aram ma commencé di di di di di dégganteeg aram hmm. ma koy nuyuwaat bu baax alaaji Moustapha ndax moom tey mën naa ne micro bii nii may tee nii moom moom ma njëkk jox micro ci ci ci ci ci ci ci làmb ci làmb ndeysaan daw jox ma micro ma xool comportement am ni mu taxawee di wax ak man pour wa te posé ku sax question bi ma bëgg a posé mais dama ko xool moom ci comportement am ak ni mu taxawee ak ni mu téye micro bi ni muy waxee ci moom laa copié keroog bi ma tàllalee micro bi ma mën a wax ci micro bi. ndeysaan ma ko ciy sant bu baax keroog rek wax naa ko. nee naa ko muy ñàkk ma booleeg aram ma jël kontaagu aram ñuy waxtaan man ak moom mu doon ji ku baax mu doon ku baax jigéen ku baax ku baax ba Serigne Touba ku baax ma tuddee ko grand combat bi mm-hmm. di nuyu wali. di nuyu wëli bu baax a baax su ma duggee Njóobeen keroog maa ngi koy wax sama émission bi ma newoon ci rajo bi di nuyu sama père ma Malick Ndiaye bu baax moom moom nga xamante ni moo ma invité woon keroog Cokkaat FM ak sama grand. moo koy ma leen nuyu ñoom xam nga ndax dañ ma bëgg ñoom mën naa ni man defuma dara man defuma dara si defuma man defaguma dara si làmb tey ñoom suñu ma dee invité xam nga di ma di ma di ma pour pour wane ma hmm. dama ci dama ciy santaat yàlla bu baax donc ma xam ne man xale laa ma nekk ci yoon am ay mag yu may jàppale nekk sama ginnaaw di ma conseiller di ma teg ci ay ci ay ci yoon yu baax dama leen di sant ñi dama leen sant bu baax di leen gërëm mm-hmm. di leen wax ni yàlla seen suñu borom yàggal seen taxawaay baax a a baax moo ma booleeg aram uh-huh. ba tax tey ma jël journée bu mag bii nii tuddee ko ko mais nag daam daam dinaa la wax ma tuddee ko daam démb yàgg Seydou dem ci aram aram li mu fa dégg ngeen ko di ngeen waxante ci suuf aram ñi ñëw nañ ni muy ñëwee <laughs> mais daam dama ne ñaar ñi ñii fawuñu kii nee na ko boo bëggee ma génne la samay vidéo nga xool samay supporter kii ne ko amoo ay supporter su ma jógee ba commune nord bi jóg waxtuma ak ñi nga xam ne ñoom laa sekkal marché dama ne lu xax làmb jooju jàpp nga ni terrain waali daan rek la mën a am làmb jooju waruloo ko mën a ma Maniang Soumaré est-ce que sax dina xaj Maniang Soumaré bu ñu ko doon yóbbu tey ci waaw xoolal de euh, Mbaye Babacar arab bi ma waxtaanee ak moom daan làmb ji Maniang la hmm. moom loolu la bëggoon moom Maniang la bëggoon ñu yóbbu ko làmb ji ndax boo dee xool cinq combats lañ jàpp ni moom lañuy taxawal. pour def pour def cinq combats yi waaye moom dafa bëggoon ñu yóbbu làmb ji mbañaa ñu yokk combats yi. Mm-hmm. Eh, yàlla def mañaa dañuy xam naa ni yàggul dara waaw dañ koy yeesalaat moo tax ñu jëm teere waldaan teere waldaan foofu làmb yàgg na fa am ay journée yu mag am nañ fa mm-hmm. waaw kon tey suñu fa demee ñun dañuy rafet njortu ni bu ñu fa yeggee dinañ ko duy dinañ duy stade bi ba mu fees ndax ñaar ñi kenn ku ci nekk si ñoom dafa su su ma waxee moom danaa ma daam boo may boo may indil bee bu may indil benn bolok bu may indil ñaari bolok kon ñoom pare nañ pour duy stade bi waaye nag dat bi dat bi combat bi warul yàgg de daam war non nii rek maa ciy waxtaan ak sama grand frère mhm. maa ngi ciy waxtaan ak moom ma koy nuyuwaat bu baax a baax a baax mhm. waa am na lu ñu déewante man ak moom incha allah rabbi dinaa fa dem lu yàggul dara. lu yàggul dara lu yàggul dara dinañ bu ñu suñu borom dimbalee ba nga xamante ni génn nañ tàmbali nañoo joxe dat yi dinañ dem ñu jox ñu dat ñu teel a tëgg làmb ji ndax làmb ji nii yàggoon na yàggoon na yàggoon na dinañ dem dinañ ko teel a tëgg du yàgg dara ñu taxawal ko ñu bëree ko ndax ñoom tamit. ndax ñu ndax ñoom tamit ñu bàyyi leen contrat bi yàgg na si ñoom xam nga. malgré metti na si man tamit waaye tamit metti na si ñoom ndax. seen xaalis daal li nga leen joxoon jeex na. Ah, waaw xaalis bi ñu leen joxoon jeex na xam nga te xam nga xam nga toog. tamit waaye nag jot nañoo jàppale parce gis nii moom. waaw dugal jël xaalis investir <laughs> toog ay huit mois xam nga <laughs> waaw toog huit mois. <laughs> nga xamante ne xaalis bi deful dara fi toog rek la toog xam nga loolu tamit neexul ci koo xamante ni ah, xale la waaw di liggéey. loolu nag waaw loolu la ñuy wax ni gis nga Alaaji Yuusu lamb facteur de développement la ku ne du facteur de développement da nga xamul yow ya, kañ am nga droit rek nga tok comme ni ko sunu papa ji di waxe nga ne lamb neexuma garaawul am nga ci droit mais ki yëkkati xalisam dem liggey ko jaante ko muy taw muy nat muy suba muy goudi ci lamb lamb nekk passion lamb passion la ñuy ay tailleur lañ dañu am métier am nañ ci lu ñu jàpp même bu ñu bëreewul dañu am seen métier am lu ñu yóbbul seen famille dañoo am ay rakk am ñu leen yaakaar ñu ni làmb mooy suñu métier mu ne kaay ma jàppale leen ci li ngeen bëgg yëkkati xaalis bi teg ci table jox leen avance ñu tëdd ci ngir ñu dundal li nga xam ne mooy suñu sport national xaalis boobu noonu di ëlbatikuwaat di duggaat ci réew mi mun nañu wax ni l'argent du contribuable moom lay nekk après parce que kay nga xamante ne dafay jaay si gerte kay jaay ñoom ñëpp dañuy wu ci journée daam boobu kon la loolu su ma ko waxee mooy yéen ñi nga xamante ni yéen nekk ay bailleurs de fonds personne ressources yi wala yi nga xamante ne suñu borom daf leen a dénk wërsëg ngeen nekk fii ci biir Thiès ñun ñii la ñuy wër te yéen yéen a fi nekkal kon ñëw leen ngeen jàppale ñii kii promoteur la nee nañ mooy caatu promoteur yi am vision am lu mu gëm ngir bëgg dëkk bi am ci benn développement boo xam ne daana àgg benn niveau moom mu jaarale ko ci wàllu làmb kon yéen ñi nga xam ne da ngeen yor entreprise yu mag yi nekk fii biir Thiès. yor seen produit te am naa yaqin ni kii ma gis bu ngeen lëkkaloo ak moom dinaa leen defal seen marketing dina leen defal promotion ci seen làmb ba nga xamante ne lépp lu ngeen di yëngu dinañ ko jël dinañ ko fësal parce que moom duñ ko bàyyi mu wécc ñun Thiès TV dañu jóg pour jàppale ko te am naa yaqin ni yeneen organe de presse fi nekk yëpp dinañ ñëw ko moo tax képp ku ci dugal sa yëf doo ko réccu ñëw leen ngeen jàppale ñii Siri Jaxate li fi nekk ci làmb mënu koo tëgg mbër yi dañoo bari pambaay kazalika Baye Samba mënul tëgg ñëpp Serigne Cheikh Niang mënul tëgg ñëpp dañuy ñaan gi mujj mel nii ñeneen ñu mel ni moom ñëw dugg ci làmb ji làmb ji gën a ubbeeku mbëri dem am xaalis ñuy bëree amateur di bég parce que làmb ñu ñoo ko moom jéggaanewuñu ko faneen suñu yëf la kon ñëw leen ngeen jàppale ñii te gëm seen bopp gëm Thiès gi ngeen nekk gëm région de Thiès sponsor yi ñëw leen ngeen liggéey ak moom bu ñu paree ñu jàll dem jàppale Baye Samba ci journée bi nga xamante ne moom la dëgmal yàlla nañ ci suñu borom defal ko lu kawe njortam diggante Serigne Dia numéro 2 ak ki nga xamante ne mooy Thiatou Samba Diaw suñu papa Serigne rek ngeen gën koo booster mu gën a jug ca kaw Modou Anta Gueye mi nga xamante dafa am combat dem leen ngeen jàppale ko te yàlla rek tax diggante Dakar Ndiaye la ak euh, Dakar la ak Thiès derby la mu doon combat capital ci carrière am jàppale leen ko te yàlla tax Matar Mbaye ambulance jàppale ko mu am combat Pambay bu instant dafa war am combat building kazalika Alaaji Gaynde jóge ci victoire boobu ba mu toog déggagul avance gis ko du yoon ñëw ñu jàppale ko Thiès nañ leen jàppale lamb ji ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi que ça soit muy man muy Alaaji Moustapha Ndiaye muy keneen ak keneen ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi li ñu ñor mooy lamb mbëri jën ba kanam sport moo ñu ñor waaye nag lamb dañu ko nattoo mënu cee ñàkk kon mënu cee ñàkk ba ñu wax jàppale na li nga xamante ne moom mooy lamb ji Alaaji Yuusu waa dëgg la foofu nga daadalee fa la ñuy yëkkatee parce que boo xoolee tey comme li nga wax ni ñuy jàppale promoteurs yi même suñu émission yi ñuy def nii dañoo war a ñëw bu ñëwee di jàppale li nga xamante ni tamit mooy émission bi émission bi méttiwul. mu hmm. bëri ñu promoteurs yi tamit méttiwul ndax tey jii boo xoolee ñun tëgg na lu làmb parce que li gën a métti da koy wax boo àndeek mbër ba bàyyi jóge ca ànd ak promoteur ba bàyyi. lu la wax ci làmb rek ne métti na rek kii parce que boo xoolee tey lépp rek eh, ci làmb la ndax tëgg na eh, ànd naa ni mu tëgg làmb presque maa ko tëgg ànd naa ni mu bëre ba yàlla dogal mu daana mu daanu ba mu bàyyi bëre man ma seeti leneen mu seeti leneen ba ci promoteurs yi nga xamante ne ñooy door a ñëw ñu liggéey ak ñoom ci liggéey bu rafet mooy mbër yi mooy nañu am fulla am fayda waaw ndax boo xoolee tey jii boo boo autorité doon génn tey dem fenn mbër mbër mbër lay àndal ñu escorté ko bu sànnee xeer mbër a koy encaissé bu fekkee balu fetal la amaana yàlla na yéex yàlla bu mu am sax moom moo koy encaissé boo wàccee mu jox la mu jox la li nga xamante ne mooy cinq mille wala dix mille kon mbër amatul valeur foofu mbër fi muy amee valeur mooy pour euh, politicien bu la soxlaa wala autorité bu la soxlaa wala koo xamante daa bëgg nga ànd ak moom boo amee combat na teg ñaari paquet bi jëndu ko teg jàppale mbër mi loolu ngay jàppale mbër mi waaw mais bu fekkee tamit mbër mi da lay ànd ak yow bu ñëwee nga ne ko ah nii nii di ko raam wala nga koy kii ak yooyu di ko dagg-daggee loolu du yoru mbër mbër nañ am fulla am fay fayda xam la ñu doon ndax ay noobu lan ay doomu aadama ñaan ñi ku leen gis boo demoon tey jii fi ñu nekk di liggéey ay noobu lan ku ne yore fi ñu toll nii dañoo yor seen métier mm-hmm. daam fayu leen de mm-hmm. mais li ñuy def di bëgg la ba pare daam di leen génne mm-hmm. parce que daam da leen defar promo mais ñoom ci promo bi leen daam defar ci lañu defar daam promo ndax tey jii bu lamb ji bu saxee ba neex ba neex mhm. tey jii dañ naan eh, kóodoo ñu ne diw ñoo ne kan moo ko tëgg waaw kon ñu jël kàddu gi rek jox leen nax alaaji su mu mel ni eh, kàddu yi am na solo et puis temps bi ñun romb nañ ko waroon nañoo jeexal waaye nag eh, c'est normal parce que daam faaw ñu li ñu la waxoon rek il faut que ñu teg la loxo ñun dañ fi nekkal pour yéen Thiès yi daf fi nekk pour waa Thiès yéen ngeen doom ay doomu Thiès di fexe nu dëkk bi demee ca kanam kon bu ñu leen fekkee ci léegi yoon lañ ñëw teg ci loxo mu dem moo tax mu demee noonu bu ko defee nag noonu laa jaare rek daam daal lay bàyyi nga daal joxe sa kàddu gu mujj bu ko defee euh, nga xool li nga xamante ne tey moom ngay wax ak téléspectateurs yi ci bis bi nga xamante ne moom la ñu dëgmal bu ko defee ñu jaar ci ñaari mbër yi ñu woo ñi nga xamante ne ñoom la ñu woo ci bis bi ñu doog a yëkkati li nga xamante ne moom mooy jotaay ñu yaakaaru tey ak ëllëg ñu koy santaat bu baax a baax di gërëmaat Serigne Saliou bu wér di ko gërëmaat bu wér a wér waa di di sant ñëpp rek ñi fi teew nii ñëpp mun la di sant Lac Rose di sant doomu Ndiobène di la sant yow Mbaye Babacar di sant laaju Youssouf te xam ni yéen maa ngi leen di bëgg daal man daal mënu leen a leen a fay ndax tamit da ngeen ni yéen a ngi sonn ngir man yenn a ngi sonn ngir man ndax lii rek nga ma defal nii. li rek mënuma la fay tay mën na ni sama famille ñepp ngi tok di di ma sétane contane bu baax lañuy def wa ma leen di wat bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax sama famille Camara Seen di sant samay mag yima bokal nday ndey ak di sant ñi nga xamanteni ni samay doom lañ may sant képp ko xamanteni ni rek sama mbokk deret nga sama mbokk bop maa ngi lay sant bu baax a baax a baax di sàkku ci yéen ñaan bu baax a baax a baax a baax di wax ni seen doom ji moo dugg ci lii de gis ngeen ko ngeen ñaanal ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax di gërëmaat sama staff bu baax di nuyuwaat Kara di nuyu Basman Laay Baro Alaaji Iba di nuyu waa ànd bu yàgg bi nuyuwaat ak lu làmb Réseau de Thiès tamit di nuyu waa Abdou Mazik famille di war sama famille di nuyu képp koo xamante ni nii rek yaa ngi yaa ngi jàppale daam ndax man bari na bari naa ñu may jàppale ñoo xamante ni tey su ma soxlaa dara sax dañ naan ma lan nga bëgg yëkkati ko jox ma ma leen di bégewaat bu baax a baax a baax di sant ñëpp di sant ñëpp di sant ñëpp waaw di leen wax ni seen dooma ngi nii di woo nag di woote nag di woo sponsor yi surtout di woo sponsor yi mm-hmm. naa ñun Thiès lañ dëkk Thiès lañ dëkk doon doomu Thiès bu ñu neexoon ñu dem mënoon nañu xool leneen mais làmb lañu yàlla natoo ñu jël suñu xéwal ñàq ko lool mu lew ñu doom ñu jël ko di ko investir. kon yi kon yoon la tamit bu ñu gisee koo xamante ne xale la. Mm-hmm. boo xamante ne nii si moyen boppam lay jël di taxawal yu mel nii. Mm-hmm. ñu ñëw jàppale ko bu baax maa ngi ñaan ñëpp daal mm-hmm. suñu déggee sama kàddu buñ mënee jàpp ñu ñëw jàpp ci bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di gërëmaat ñëpp. di gërëmaat ñëpp bu baax baax di gërëmaat wa ciess gi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp képp ko xamanteni ni yaa ngi may sétan rek ma ngi lay nuyu di la bëggé bu baax a baax baax a baax jërëjëf te yaakaar naa autorité yi dégg nañ ko sponsor yi dégg nañ te am nañ yaqin ni lamb ji di ci am lu koy sa njort loolu man maa la ko promettre ci kantanu yàlla alaa Yuusuf sa kàddu gu mujj waaw di santaat yàlla di julli ci yoon bu baax di nuyu sama benn doomu nday bu baax ñaa ya, ko Mor Ndiaye jom Ndiaye yaakaar naa mosoon naa jaar waaw may nuyu waa marché central may Diouf may Diouf may nuyu waa marché central ah, may ñoroon naa leen fàtte ñooñu alaaji mënu ma leen a fàtte may nuyu waa marché central gi yëpp waa Maguette fa may fa taane sama doole nuyu ñoom grand Bada Abdou Ibrahima grand Dramé ñoom Ndaw Góora di nuyu waa roq bi sama feer xaar moom moom laay jox nuyoo bi mu jox ma ko waa ruq bi yëpp di nuyu sama papa yi nekk foofu noonu yëpp ndax ñoom ñu baax lañ ndax nit bu la yéenee rek waaw te ñoom ay ay ay dañ maa yéene damay romb foofu sax nga gis nit ñaanal ma ci koo xamante ni sax xaw ma ko ma leen di may nuyu waa marché bi yëpp di nuyu di dem di nuyu waa gaar ba di nuyu sama doomu nday aslari di nuyu waa gaar bi yëpp ñoom maas waaw képp koo xamante ni nii rek di nuyu sali waaw moom nga xamante ni moom mooy waaw mooy jaar fii nii si bopp bi. ndeysaan El Hadj Youssou nga tey ku fi jaar. waaw xam nga ki nga na ki nga xam ne mooy Diome njaay di sama doomu ndey di sama xarit kooku ma ba nekk xale ba tey ñooy ànd. Mm-hmm. génn fii. ci tabaski gi la woon. moom. ci tabaski gi boo gisee lii daaw moom la Pambaay def. Uh-huh. di sama doomu ndey di sama xarit di ñaanal yaay bi nga xamante ni moo tëdd Touba suuf sedd ci kawam guy. Mm-hmm. di ñaanal ñëpp di wax ni. Eh, tab ki nga xamante ni mooy NZ Njëgeen. Ndaga Njëgeen maam As. di ko nuyu bu baax borom seen euh, seen 24. Mm-hmm. di nuyu Mamadou Seck li nga wax ni mooy directeur programme bi. Mm-hmm. ko nuyu baax di nuyu képp koo xam waaye del si del si fii di gërëmaat ki nga xamante ne nii. Mm-hmm. mooy El mi nga xamante ne moo nekk fii. tamit bëggul dara lu jëmale kees kanam. di di ñaanal ki nga xamante ne tamit mooy képp koo xamante ni yaa ngi yor euh, micro di wax ci làmb wala nga yor comme. Euh, tele yi di nekk ci kees di doxal li nga xamante ne mooy làmb surtout bi kajoor nag ñor la xomb mm-hmm. ñi ngi lay ñaanal fa nga nekk ak la ngay def yàlla sulu suñu borom def mm-hmm. jàmm def ci xéewal ba lépp loo xamante ne mooy sa yéene mu mu mu sotti mm-hmm. di la ñaanal di la gërëm di la nuyu bu baax a baax di nuyu sama waa ji Pape di ko nuyu waat bu baax di nuyu sulu famille bi di nuyu soxna yi di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi di jàkkaarloo lu doon seetaan di famille daam wala famille ki wala famille la grosse Euh, di nuyu ñaari ménager yi nga xamante ne ñoo toog jàkkaarloo dañoo xaw a nuroo sax parce que boo xoolee ñoom ñaar ñoo bokk seexal la waaye ñoo bokk li nga xamante ne mooy aar bi ñuy def bokkaat li nga xam mooy métier bi ñuy def li may leen wax rek nee naa leen ñoom ñaar ñoo bokk lépp leen donga leen di tàqale ah. jour ba arbitre bi soufflé ñu dóorante ay coups bu <laughs> kenn yërëm sa morom ku mën a dóor sa morom daal ba jour boobu bu ñu koy bu ñu koy yóbbu këram dañ koy watat ah, yóbbul l'essentiel lu ñu bëgg daal mooy uh-huh. képp koo xamante ne daal yaa ngi ñëw ca làmb ji da nga indi yar indi supporter uh-huh. feesal làmb yëngal ko comme ni koy gars yi waxee uh-huh. leen ñaanal jàmm na jàmm yàgg fii nga xamante nii man de man de man de dinaa bokk ci combat préliminaire yi bu boobaa du ma ànd ak caméraman du ma yor micro du ma yor micro central dafa am benn boy daal bu nekk ci kër gi dama fontoo fii benn booy bu xees la nii caméraman la. waaw mais xam naa nga ko fii lay nekk ci kër gi dama fonto bu gaa yi génnee mu may noggatu. ah bu may nelaw bu may perturbé su ma dalee ci plateau bi sax du ma may jàmm mais na la di nga jël avance bi séeru jàmm fair play rek nga koy indi ñaa non dama ko andi fair play il faut ñu dem ci leneen quoi ndax ma am jàmm non il faut mooy yóbbu ko il faut ñu bëre maag moom parce que mi ngi noonu alaaji suñu kontaanal bu baax ñëwal alaaji foofu la ñuy daanale di vingt-cinq ñëw naa marché central sànq bi ñuy waxtaan ci sa làmb ji mm-hmm. benn waaye na ma bi yow kañ nga ñëw ci marché ma ne ko 1989 événement naar yi fii la ma sama patron dóoree mbéj eh. <laughs> mu ne ma yaa ma ne ko képp koo xamante ne daal yaa ngi dund laam ñu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm Pape Gueye nuyu naa la baax di la ñaanal jaam di la ñaanal saam lu baax rek ngay dox jërëjëf Gueye waaye léegi nag euh, balaa maa dem ci ñaari mbër yi Alaaji faaw ñu monté ay combat fii ah parce que combat yi faaw ñu monté ko ma dèjà ma ki ma lay wax nii suñu combat taxaw na mais Pape Gueye mii faaw ñu ko adversaire <laughs> Pape Gueye après la faaw ñu ko adversaire ak booy bi ci kaw da war a bëre yow mbër nga yaa ak yaa kii combat nu mu tuddati kan lañ ko mën a jox fii moo borom le mais moom borom le six lool rek combat la le six ak combat la <laughs> ceste bi am nañ combat bu mag fii ci kër gi combat ak moom yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm rek ñu jël kawe ñoo toog si jaay nabi Moustapha ñu jaajëfal gars yi ko defee noonu laa ñëwee rek ci euh, le grand champion doomu Ndiobène ma bàyyi la nga tàggatoo daal di woo ñu ngay woo ci benn simili ndax romb nañ temps bu yàgg buñu pare doo ko jaale ci nga maquette ba Abdou Thiam président Abdou Thiam maa ngi koy nuyu nuyu Mbaala Ndiaye Kengaayal Baye Sidi di nuyu Malick Sarr Baye Ali ak Zil Souleymane iPhone maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu ba place Pameng waaw di nuyu Mbaye Ndiaye Touba Baas waa ku bëgg baas bu rafet la nga dem ci moom Touba Baas Baye Modou Ndiaga Mbaye ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu sama waa écurie maa ngi gis nit may taxaw ñoom ñëpp di nuyu sama wa koñ sama waa mafia doom Ndiobène mafia dawut coow ak numéris bu dara yomb coowal leen làmb jépp bu dara sedd na lépp yëngu are jeex jaam di nuyu sama sama papa sax laay wax jeex jaam ak laay lion di leen woo si combat bi ñu jàpp si mer ndey am ma fayam sëñ Saal sama papa la am ma fayam sama maam Daba ak sama papa Modou mi am ma fayam yàllaa koy fay di ñaanal sama yaay gudd fan wér gi am sa papa Oh, yóbbu leen maag ak sama gars yi maanaam Abdou Massé Sida ak Seynou yaay Modou tamit di ko sant bu baax mère Yacine Mbaye ak papaam Ndiaga maa ngi leen sant bu baax na jàppale. duy waa Maana Fall gépp nag di leen woo waaw sama waa mafia bu ndaw bi boo yemee indi ginaar yi waaw maa ngi leen nuyu yéen ñëpp. waaw <laughs> ak ñoo mën a dóor dóor rek la yéen. Ah, da ngay da ngay rek. <laughs> di nuyu sama papa Abim Niang. di ko mu jàpp ci combat bi amar ah. badian ma ngay wo sam papa mu jàpp ci combat bi do aram ñaalaal leen mo may mak 5 car 5 car ra bëgg papa amar badian may na ma trois car mu may 5 car muy 8 wa loolu bëgg na ak it set nag waaw ak bay yo yo yëpp ñu jëndal mako do abi Kara wa duma ko fàtte Kara da ci jàpp ba billahi sen wa ma se yëpp Cheikh Mbaye fallu su ma way woy tay fallu tay tamit na ci <laughs> lay Lion sama wa keur na Njaay Ndey Fatma daan soxna say jeng ak sama bàjjen say ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu ak xale yu ndaw yëpp waaw. ndeysaan borom gi nag. waaw ah, di nuyu Pape Café <laughs> Pape Café ñoom ñëpp maa leen nuyu. jërëjëf laa jàllee waaw damay nuyuwaat. waaw. waa Silema que kër daago kër daago njoon passé unité 3 gi ma dëkk euh, un deux ñëpp rawatina sama fat si bu nekk fayu nga xamante ne awa njaay jiite ko mhm. ak doomu ndeyam soxna jaara maa ngi koy woo ñoom ñëpp parce que ñu ngi koy préparé barki ci rajo bi nañu ma ne carrément pare nañu ak kumba mi nga musante yor fa fan si bi moom yaayam di market maa ngi koy nuyu baax a baax dafa am mercerie ngi koy woo ci combat bi ñu woo ñoom Ngone ñoom Idi Seck ñoom Ibrahima Seck xam nga ñoom Thierno Ndiaye Malick Faye délégué Moussane yëpp kilifa yëpp ñu leen di woo di woo sama xarit ki nga xamante ni moo ma daan joxe kaar lépp moo daan def ci man mi Lamine kay jëwriñu Serigne Saliou ndigal Thioune dëkk ca parcelle unité 1 Lamine maa ngi lay woo ci combat bi oo ma lu dul yow oo ma lu la ëpp maa ngi lay woo ci combat baax a baax Lamine menuisier métallique aussi maa ngi koy woo maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn. képp koo xamante ni yaa ngi may dégg maa ngi lay woo ñi nga xamante ni wax dëgg fa yàlla amoon na suñu diggante ñu gëj a gisante taalal naa ñëpp loxo maa ngi ñaan ñëpp ñëw xamante ni Lac Rose seen Lac Rose seen doom la euh, sunu maire bi Pape Diop Pape Bassirou ñu ngi koy woo ci combat bi di woo ki nga xamante ni mooy Aliou Sow ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo baax a baax a baax képp kuy autorité te duñu dégg rek dégg fa yàlla ay xale leen combat bi combat wu daaw la woon ko waroon ko bëri le neuf combat bi def mbas mi ñëw dàq combat bi wax deug fa yalla amatuñ dara ñu ngi ni zéro man boog sama bop la xam yoratuma deureum maa ngi woo autorité ñi japp ci yalla dara képp ku Thiès ñor bëgg avancement wu Thiès ma nga lay ñaan nga jàppale ma ci combat bi ndax combat bi actuellement ni metti na trop suma ma la waxee su ma rek yalla tax metti na trop ma ngi woo autorité doomu Thiès ak bañkat ku nga xam ne Thiès dëkk bañkat la Thiès dëkk sotkat la ak yi suñu doom yi nga seen doom nga xamante ni dafa juddu ci bis bu rëy xam nga te war a te marqué retour boo xamante ni parce que aduna ko soxla kon maa ngi woo ñëpp rek ku lim juum wasalaam ñu sama xarit bi nga xamante ma penn njaay nga xam dafa sonn ci man lépp lu ma dugg ma nga ca awa adama ak awa seexi sama rak yi ñoom ñëpp maa ngi nuyu baax ñu faam borom këru asu jóob ñoom ñëpp ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp ñoom faama ñoom paat endo xam nga suñu frère daal ku lim juum daal sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp di nuyu sama patron Baye Daouda Ndiaye sama grand Badou Ndiaye fii ci Sédar Senghor koy siyaar ak soxnaam Ngouda ñoom maam Khady yaayam day sëy ñoom ñëpp maa ngi nuyu baax a baax a baax <laughs> xam nga ñoom zos ñëpp rek ñoom moor bàyyiwuma kenn ku lim juum général chaque <laughs> matin yaa may woo mu yóbbu entraînement jërëjëf euh, ki nga xamante ne moom mooy Lac Rose euh, bu parcelle jërëjëf doomu Ndiobène mbokku téléspectateurs yi li moo nekkoon seen face to face bi ñu leen andiloon tey waaye laata may euh, tëj jotaay bi nag damay nuyu ki nga xamante ne moom mooy waxoon naa ko sànq xanaa rek ma jaaraat ci moom mooy Birane Sall bu école de lutte Samba Diaw bu jaxaaw ñu nuyu ko ak soxnaam su baax soosee di bébé nee naa dafa nabaate bopp moo tax foo ko fekk nag fàtte nañ turu soxna si bébé lañ wax Birane yàlla na sa jaamu yàgg ñu jaajëfal bu baax a baax moom it di ko wax nii nit ku bax la nit ku fonk lol lamb di ci bay waram di ci def liggey bu mucc ayam di jël dolem alalam xalaatam ak lepp diko jox li nga xamante mom moy mooy lamb ji buñ ko nuyo dañuy nuyo mbooleem ku nek école de lutte Samba Dia waaye na di beral nuyo ki nga xamante mom moy suma magu bop suma nijaay bop di pap mbay nit mak ci Matar mbay ambulance ñu nuyo ko nuyu Mamadou sek wa ahlu lamb région de Thiès ma nuyo leen bu baaxa baax ñu nuyo association and taxaw lamb bu Thiès bàyyi jili wad mi nga xamante moy le conseil général ba nek numéro 1 fele ci Dakar Ndiaye jël jop ñu koy nuyo bu baaxa baax soxna matifal yow nag xam nga xamna dama neewon dina la yor doole mais da nga am chance sama anniversaire démb la woon dig nga ma cadeau gisoo ko yow jaru waaw baax na yow bu daal yaa ngi noonu Mati Fall bu Thiès Média Mati Fall bu bu bu bu Lamp Fall na Fall bu Thiès Mbooloo Mati Fall yow daal nañ bàyyi noonu xam nga xam naa dama lay bañ a sóol mais naa la baal quoi jekku naa la amul benn problème Mati baax a baax suñu jigéenu bopp ba nekk ci ñun biir taxawu Lamp Thiès di liggéey liggéey bu mucc ayib mu mel ni ah mais man xoolal maa ngi dem de la grosse baal ma non laa bëgg a sant rek borom drapeau bi Arame Niang waaw di ko woo ci pour mu nekk lu mu tuddee boobu rek ah. arab ñaan laa lion te combat bi dinaa ko combat gaynde la ah. kon di ko ñaanal moom te ko woo ci bi mu jàpp ñu boole ñoom Moustapha Diop mu jàpp ci ndax combat bi mett na daaw la woon ah. wax dëgg fi loolu laa amoon message may jàllale arab ñaan zone nord a soxla damaa fa nekk kay Bombardier jàppal ci man Balla Gaye Bombardier daan na Balla Gaye daan na ko daan na ko